professeur Adams Tidjani maa ngi lay nuyu. maa ngi lay Adams Tidjani nga nekk expert scientifique engagé wu ci xeex euh, lépp loo xam ni dafay protéger environnement euh, samedi bi muy marqué conférence euh, COP de 27 ci ñu koy amalee fole ca Égypte jëm ci wàllum xeex réchauffement climatique ci àdduna bi pour yow importance su ndaje COP 27 bi. waaw COP27 bi taje bu am solo la parce que chaque année dëkk yi dañuy mbooloo di xalaat si lu ñu war a def pour wàññi réchauffement climatique bi ñëpp gis nañu tey jii euh, inondation yu jot am si dëkk bi ñëpp ñu ngi mois de novembre dëkk bi tàng na yoo xam ne ne xamuñu ko loolu yëpp réchauffement climatique bi moo koy def il faut que nit ñi bàyyi si xel. wante ren di COP 27 bi euh, dina am si situation boo xam ne dafa doy waar parce que xam nga ne monde bi jóge na si ñetti crise maanaam tey jii on a la nga am crise alimentaire ñu ngi am crise énergétique maanaam est kii pétrole bi doyul crise financière loolu doyul mu am guerre Ukraine guerre Ukraine bi ñëw gën a jaxasee affaire tey ji koo wax mu ne la guerre Ukraine bi dem na ba nga xam ne ne tey ji euh, xamoo sax fooy teg sa tànk tey euh, réchauffement climatique bi daje bi objectif mooy benn xool nu ñuy wàññee nu ñuy woy émission de gaz à effet de maanaam CO2 am na gaz boo xam ne mooy responsable réchauffement climatique du ñuy xalaat nu ñu ko mën wàññi ba nga xam ne ne température jaww bi du dépasser un virgule cinq ak augmentation bi du dépasser un virgule cinq mais ñëpp xam nañ tey jii ak mesure yu ñu jël yëpp température bi dina dépassé deux degrés mais loolu taxul nag nit ñi toog nit ñi ñu ngi xalaat ay mesures d'atténuation mm. mesures d'adaptation boo sëree boo jëlee tey suñu dëkk Sénégal lu ñuy jëkk def tey jii teg nañu terre bi terre bi bu dawee dina wàññi utilisation euh, comment dirais-je euh, oto yu bëri yi parce que tey jii boo jëlee euh, fukki nit bu ku noon doon doon jël otoom di liggéey yi ak ñooñu tey ñu jël terre bi terre bi moo gën en plus terre bi c'est électrique donc ça veut dire que dinañu wàññi émission de gaz à effet de BRT bi bu dawee tamit même chose Sénégal aussi mu ngi teg ay e, jéego pour tabax ay centrale solaire moo xam ne ne naaj bi moo koy jox énergie loolu yëpp c'est des mesures yoo xam ne ne d'atténuation adaptation yooyu yëpp pour xeex réchauffement climatique wante am na benn anam bu nga xam ne ne tey jii euh, pays développé yi duñ ko bëgg a imposer suñu dëkk yi maanaam xam nga am na dëkk Afrique yu bari tey jii gis nañ fa pétrole gis nañ fa gaz léegi du la ne yéen am ngeen pétrole am nañ gaz mais munu leen ko utiliser te ñoom dëkk yu développé yi pour ñu egg ba fii nu utiliser pétrole dinu utiliser gaz xam nga loolu xel mënu ko nangu yow mënoo développé man ma am pétrole a gaz bëgg a développé nga ne ma déet doo ko def parce que boo ko utiliser da ngay def da ngay émettre ay gaz à effet de serre te gaz à effet de serre mooy responsable réchauffement climatique mais réchauffement climatique bu nu am tey benn pays africain ne responsable boo jëlee Afrique ba mu jeex pays sous-développé yi pour cent mooy seen émission de gaz à de serre yu si des yëpp États-Unis Chine Europe ñoo koy émettre mm-hmm. xam nga loolu xel ko nangu loolu tax ci maa ngi rafetlu décision Congo ak Sénégal bu ne tey jii ñoom seen pétrole ak seen gaz duñ koy exploité parce que dañu bëgg a développé loolu mooy yoon léegi ñun à côté suñu exploitation pétrole ak gaz fii mun nañ def en place des mesures d'atténuation maanaam ji ay garab euh, mur grande muraille verte ngi nii ñu ngi fay saxal ay garab am na yeneen mesures yoo xam ne mënoon ko def ba nga xam ne ne même bu ñu utiliser sur énergie fossile dina am mesure yoo xam ne ne mooy compenser utilisation boobu je pense que il faut que pays africains yi eh, mbooloo wax d'une seule voix et je pense que comme COP27 bi pays africains yi wax d'une seule voix mais am na benn problème boo xam ne ni yàgg nañu ko dig pays africains yi di cent milliards yu ñu waroon jox pays africains ba léegi eggaguñu si cent milliards yi eggaguñu si quatre vingt milliards te am na loo xam ne ne moo am xaalis boobu mayuñu ko pour atténuation ak adaptation dinañu koy lebal donc finalement loo xam ne ne duñu yaakaaroon gars yi may na ko pour ñun ñu mun a adapté tabax suñu BRT tabax suñu terre et cetera dina tubaab bi nee na def ñu koy lebal nga xam ne ne après il faut ñu daloo ko ko. loolu yëpp il faut nit ñi bàyyi si xel léegi nag négociateurs yi yu africains yi ñoo war a am fayda parce que am na ñoo xam ne nag eh, il faut il faut nga yëkkati sa baat parce que boo yëkkati sa baat kenn du la respecté ken du la jox cër donc je pense que africains yi nañ dem bii pas takk seen ngem xeex jël lu nu moom indaale ko fi si dëkk incha allah. Euh, Adams Tidjani lan moo war a nekk euh, comportement wu être être humain bi pour euh, protéger environnement bi. moo war a nekk lan info. maanaam nit ki daal naka la mën a protéger environnement bi lan moo war a nekk comportement lan la war a def lan la warul def pour la protection de l'environnement l'être humain en fait. waaw xam nga protection environnement il faut d'abord ñëpp ñu changer de comportement. benn changement de comportement li mu ko waxee sax tey jii boo gisee di nga gis benn service ñu ngi eh, dix dix personnes maanaam fukki personnes ñoo fay liggéey ku nekk day ñëw liggéey si ak ak ak ak ak ak eh, ak otom loolu du soti il faut que ñu mën a mbooloo wala di si jël ñu a jël ñaari oto kooku mooy changement de comportement mais lolu changement de comportement bi nag dafa ànd aussi ak un changement social parce que tey jii boo jëndee benn doo benn Sénégalais tey jii mu jëndee oto bu bees oto bu bu rafet nga ne ko yow gaaree sa oto nga dem dugg si oto Mademba boo xam ne ne oto bu màgget du ko nangu donc yooyu yëpp il faut que ñu suuraale ko ñun suñu wàllu bopp il faut que ñu réduire suñu impact carbone sa kër fay lamp yi sa kër fay climatiseur boo nekkee si bureau nga def la même chose loo mun def nga course yoo xam ne mën nga dox di ko def nga def ko donc lépp lu nga xam ne ne def lay wàññi utilisation pétrole yooyu da nga koy wàññi loolu changement de comportement la loolu tax dañuy wax ne loolu ñuy wax ne la transition socio-écologique il faut que nit ñi suuraale ko parce que aussi il faut que nit ñi xam ne ne du état bi mooy def lépp ku nekk Sénégalais bu nekk am na lu mu war def tey jii yàgg na yàgg na ko proposer au ministère lu tax duñu def ñu ji ay garab si kër yi loolu mooy suñu aada boo seetee kër gu nekk avant dafa doon am garab foofu noonu toog di ataay léegi da ngay dugg si kër da ngay ñëw si kanamu kër amu fa benn garab loolu il faut ñu loolu mën nañ ko dog te Sénégal mën na def un programme li ñu woowee mécanisme de développement propre nga xam na ni borom kër bu nekk duñ ko wax mu saxaar garab am na dëkk yoo nga xam ne tey jii ay Malaisie étudiant balaa ngay def sa thèse il faut nga saxal ay garab il faut nga saxal garab balaa ngay mën a nga ne saxal nga tel garab pour nga mën a def sa thèse yooyu yëpp mesure yooyu war nañ ko mun a def jàngal xale yi ñuy jiyee ay garab ñu koy entretenir et cetera et cetera mag yi aussi dugg si. loolu ce sont des mesures yoo xam ne ne état bi mën na ko lépp accompagner population pour ñu réduire les émissions de gaz à effet de voilà ñuy dégg euh, souvent tamit euh, ñuy wax euh, couche d'ozone destruction de la couche d'ozone est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun tuuti ci lan mooy couche d'ozone ak tamit trou boobu ñuy wax ni am na te li ko indi moom mooy wàllum négligence bi am ci protection de l'environnement pour nga expliquer ñu ñu xam couche d'ozone ak importance bi mu am. waaw couche zone nag dafa am benn gaz bu ñuy woowee ozone moom mu nekk ci jaww bi mu def mel ni benn benn luy luy protéger doo comme comme parapluie mais dafa wër àdduna si gaz boobu xam nga naaj bi dafay envoyé ay rayon mais rayon yuy naaj bi di envoyé nu doole am na yu am doole am na yu néew doole léegi couche d'ozone bi fonction bi mooy rayon yo naaj boo xam ne ne naaj bi moo ne koy yu am doole moom daf koy téye li muy bàyyi mu jàll mooy rayon yoo xam ne ne amuñu doole parce que yu am doole yi ñooñu ñëpp bu ñu jàlloon àdduna si day day disparaître parce que ñu ñëpp déjà il faut dañuy développer cancer de la peau am na ay écosystèmes yu bëri yoo xam ne day disparaître donc dem nañu ba benn moment ba nga xam ne ni couche d'ozone boo xam ne ni mooy aar adduna si mu am ay ay dëmbën lu ko waral parce que am na gaz yu ñuy utiliser ci réfrigérateur yu ñuy utiliser ci déodorant yi muy woowee CFC yooyu mooy dem attaqué ozone def fa ay pax donc buñ ci xamee loolu ñu commencé xeex foofu la tubaab bi changé gaz bu ñuy dugg ci kii bi Euh, si réfrigérateur yi loo tax à l'époque ngeen gis ni à un moment réfrigérateur yu bëri euh, dafay jóge États-Unis wala France di wàcc si Dakar koñ boo dem am na venant de France wala venant de des États-Unis ay réfrigérateur parce que ñu ngi doon utiliser gaz gaz bu ñu doon utiliser si réfrigérateur yi duñ ko change te puisque Afrique moom la ñu mooy la la poubelle du continent lu baaxul yëpp gars yi indil ñu ko fi gars yi ñoom aussi boo xam nga boo amul doole loolu la indil da nga nangu donc xeex nañ ko wàññi nañu gaz ba nga xam ne couche d'ozone bi dellu na place am tey jii mu ngi jouer fonction bi mais gars yi si bàyyi bët si bàyyi xel parce que euh, bu amaatee beneen trou loolu tamit dafay indi ay jàngoro te day contribuer ça aussi au réchauffement climatique voilà professeur Adams Tidjani maa ngi lay jaajëfal. Mhm. voilà may ne expert euh, scientifique nga engagé wu surtout ci la protection de l'environnement.